baaxoo di teewlu xibaaru bambuk dal leen ak jàmm ci seen tënkum xabaaru bés bi vision mondial dal dinay jox euh, matériel yoo xam ne dañ koy jëfandikoo ci euh, bërëbu fajukaay yi toll si juróom-ñett euh, poste de santé yi nekk ci département bu Koungheul ndimbal li nag mu ngi toll ci fukki million ak ñaar yoo xam ne ci Euh, matériel yi nga xam ne daal dinañ koy jënd mën nañ cee lim lu mel ne lal ak ay toogukaay yoo xam ne euh, dina yombal ñi nga xam ne dañuy ñëw ci bërëb yooyu di faju ñu mën a am nekkin bu baax loolu nag ñu mën cee lim ci ñett euh, communes yoo xam ne daal dinañ ci am lu ci mel ne luur Escale Gent Pathé ak ribo Escale ñi nga xam ne nag ñooy maire yi ak ñi nga xam ne ñooy liggéey ci wàll wér gu yaram daal dinañ euh, rafetlu bu baax li nga xam ne euh, waa vision mondiale daal nañ koy def ci euh, gox yooyu. ñoom nag ñu nga amaloon li nga xam ne mooy daje bi ni ki talaata bi ñu génn fanweeri fan ak benn ci weeru mai ci poste de santé bu nekk foofu ci Lour Escale. idam muy unité d'assurance maladie nekk fii ci département bu. Koungheul fas yéene na amal ñaari projet yoo xam ne du dara lu dul jàppale askan bi ngir que euh, seen euh, faju gën a mun a yomb ñu mën cee lim nag pilier 2 bi nga xam ne Enabel moo leen daal di joxe koppar yi ak yaa nga xam ne ñaar yëpp dañuy yëngatu ci euh, jàppale jigéen ñi nga xam ne dañoo wan lor ngir que ñu mën a faju ba duñu am benn gàllankoor waaye xale yi nga xam ne tamit amaguñ juróomi at ñu mën di leen faj te duñu fay dara. ñoom nag ñu ngi woo ñi nga xam ne ñoo jiite gox goxaate ñu daal di ci dugal seen loxo bu baax ngir gën a mun a yombal leen seen liggéey gannaaw loolu tamit euh, moom directeur bi Senghor mu ngi woo askan wi ñu daal di jël mbir mi euh, daal di koy def seen moomeel di ci dugal seen loxo ba askan bi yëpp gën cee gis seen euh, bopp conseil constitutionnel daal dinay neenal recours yi nga xam ne coalition Yewwi Askan Wi du déposé woon nañ ko foofu ñaar la nag benn bi doon wax ñu bàyyi seen liste nationale titulaire bi mu jàll gannaaw ba nga xamee ne gàntaloon nañ ko euh, beneen bi tamit pour ñu gàntal euh, li nga xam ne mooy liste Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne ñoom dañoo jàpp ne euh, daal du respecter parité waaye dañoo ëppaloon ci parrainage yi buñ sukkandikoo nag ci bataaxal wala décision yi nga xam ne ñett juróom-ñaari sages yi daal dinañ koy jël ñoom dañoo daal di wax ne ministre de l'intérieur arrêté bi nga xam ne génne woon na ko dàq yenn yi nangu yenn yi boobu lañ daal di euh, fësal euh, loolu nag lu muy firndeel mooy ba léegi benn Bokk Yaakaar seen liste yi titulaire bi mooy dem waaye suppléant bi du dem waaye Yewwi Askan Wi ñoom euh, suppléant bi rek mooy dem seen titulaire du dem waa coalition Yewwi Askan Wi nag bañ jotee xabaat bi am nañ ci lu leen naqari Euh, ki nga xam ne nag mooy mandataire bi di Déthié Fall daal dinay wax ne dinañ indi tontu ci mbir mi gannaaw bañ ànd bañ dajee ñoom ñi nga xam ne ñoo euh, bokk coalition boobu di yeewi askan wi. gannaaw loo ñaata ci wàll tàggat yaram ak euh, gaynde wi di Sadio Mané ni ki démb amaloon a jàkkaarloo ak taskatu xabaar yi gannaaw ba nga xamee ne ñu ngi waajal seen match bi nga xam ne moo war a am tey seen diggante ak beneen ci éliminatoire coupe coupe d'Afrique 2023